mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen baalu ak di leen baalu di jiital ci nuyoo bi suñu bàyyi Mor Njaay di nuyu mbooleen président daayira yi ak mbooleen présidente yi di ñaan yàlla guddi gi yàlla bu mu doon suñu mujj guddi di nuyu Pape ak ñi mu àndal ñëpp ñaan yàlla yal na yàlla sàmm leen yal yàlla aar leen yàlla ubbi seen i dënn yokk seeni i xam-xam defal leen ko defal ñu ko defal ko mboolem jullit di nuyu sunu sëriñ di sëriñu Oustaz Kébé di ko ziyaara di ko ndokkeel di ñaan yàlla yal yàlla barkeel jaahi nabi Mustafa sallallahu alayhi wa di ñaan it suñu cofeel ci Serigne Babacar Sy yal na yàlla dolli yàlla dolli suñu cofeel ci Serigne Babacar Sy fii ma taxaw di wax micro bi tey ñi ronu tant bi ñëpp kuñ ci yëkkati woon micro bi jox am nga foo jaar ak Serigne Babacar Sy am na fu Serigne Babacar Sy jaar ak yow. muy doomu Cheikh Seydi Hadji Malick di doomu soxna Roqeetu Njaay te Cheikh Seydi Hadji Malick donnu Seydina Muhammad waaye roy Seydina Muhammad nduru Seydina Muhammad lu tax mu nduru Seydina Muhammad keroog ba yent yàlla Muhammad dajeeg sayyidatuna Khadija la daloon sayyidatuna Khadija ci sayyiduna Muhammad moo dal soxna Roqeetu Njaay Cheikh Seydi Aji Malick dafa gis yent yàlla Muhammad bëgg ko ba tàggoog sagoom sayyidatuna Khadija bokkoon ci famille bu riis waaye mu nekkoon ku am alal moom sayyidatuna Khadija soxna Roqayatu Njaay bokk ci famille bu riis waaye Sayyidatuna Khadija keroog ba mu bëggee Seydina Muhammad pour mu jot ci Seydina Muhammad dañu nandal ay mbokkam sàngara mba ñu màndi ñu waxtaan ñu may Sayyidatuna Khadija Seydina Muhammad soxna Roqayatu Njaay keroog ba mu gisee Cheikh Siraaji Malik ci daara ji muy jàng mu dem waxtaan ak ay mbokkam nañu ko may Cheikh Seydi Hadji Malick mbokk yi dañu wax ne yaa gàtt bët yaa tuuti bët yow ak famille bi nga bokk amul fenn fooy teg sa bët lu dul ki nga xam ne yorul lu dul ay téereem toogul lu dul ci daaraam soxna Roqaytu Njaay yaa tuuti bët soxna Roqaytu Njaay wax naa la mu mbokk ci famille bu riis way juróom bu góor di góor gi Ali Boy Njaay waaye keroog ba ñu dajee waxtaan ñu may ko Seex Seydi Aji Malick Seydi Aji Malick jëfandikoo la alquran waxoon ne wal baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi izni rabbihi walladi xabusa laa yaxruju illa nakida alquran nee na boo bëggee am jiw bu baax dangay ut suuf su baax nga sàndi fa sa jiw Seydi malik am soxna Roqayatu Njaay mu jël jiwam sàndi ci soxna Roqaya mu am ci Sëriñ Babacar fekk nañ ko ndar mu toog moom Cheikh Seydi Hadji mu nekk ci taalifam yu rëy ya di jàng di jàngale dëkk bu ñuy wax ndomba alarba ñu àndil ko benn lettre ne ko soxna Roqoyatu Njaay yeeweku na am na doom bu góor mu ne Babacar a ngoog dégg nga fekk nañ ko ca ndomba alarba ñu indil ko lettre ñu ne ko soxna sa nga bàyyi woon ca ndar muy soxna Roqoyatu Njaay yeeweku na am na doom bu góor Cheikh Seydi Hadji Malick ne Babacar a ngoog ñu ne alaaji Malick ban Babacar ngay wax mu ne nañu bàyyi ba mu màgg bu màggee ñu xam ban Babacar laay wax ci 1885 Sëriñ Babacar si nekk ndar ba am juróom-ñaari at ñu andil ko baayam ca Tiwaawoon muy jàng moom Sëriñ Babacar si di jàng teel a bëgg yàlla teela ragal yàlla teel a bëgg Seyduna Muhammad teel a bëgg Seexna Ahmada Tijaani baayam tàggat ko ci bëgg yàlla waaye mu teel a bëgg baayam Seex Sidaaji Malik mu nekk fa di nekk fa di jàng mu dund ak baayam Seex Sidaaji Malik yëgal ni pap Serigne Babacar yi donn na bàyyam Cheikh Seydi ji Malick juróom-ñaari at te Seydi Hadji Malick a ngi dund Serigne na bàyyam Cheikh Seydi Hadji Malick juróom-ñaari at te Seydi Hadji Malick a ngi dund juróom-ñaari at la doon Seydi Hadji Malick dañuy tënk waxtaan bi ndax dafa guddi am bés Cheikh Seydi Hadji Malick woo Serigne Babacar Sy mu ne ko yëg naa ne maag yow sunu leer yi ñun ñaar xajul biir Tiwaawoon foog ma sori ma tuuti Serigne Babacar Sy ne ko kon ma dem Louga mu ne ko Louga mag a ngi fa muy Thierno Malick Sall Mam Malick Sall mu ne ko kon ma dem dakaar mu ne ko dakaar sama liggéey noppeegu fa mu ne ko kon ma dem tëngéej mu ne ko waaw kay tëngéej baax na sëriñ Babacar si ñëw biir tëngéej Cheikh Seydi Hadji Malick nekk Tiwaawoon Seydi Hadji Malick di yàq yent yàlla Muhammad lu mel ni xeme ci ay tagg Cheikh Cheikh Cheikh Seydi si nekk biir tëngéej di yàq Cheikh na Ahmada Tidiane lu mel ni xeme ci ay tagg way wii nga way sànq sëriñ Babacar si moo ko way waaye ma ngi ko wooyee biir tëngéej ban way la talaat lana shamsul huda kusifat duja liman ixtada dafa dugg xalwa moom Serigne Babacar Sy di jaamu yàlla jaamu yàlla gi sell Cheikh na Ahmada Tidiane mu réeku ci kanamam mu jël satala bi moom Serigne Babacar Sy sottil ndox Cheikh na Ahmada Tidiane Cheikh na Ahmada Tidiane jàpp Cheikh na Ahmada Tidiane jëlaat satala bi sottil Serigne Babacar si Serigne Babacar si jàpp am na ñu wax ne dafa gént géntul daf koo gis yàq zatan laa man keroog ba nga demee ba ba mu demee ba nga xam ne Cheikh Seydi Hadji Malick yaram bi sutante na mu woowaat Babacar si ne ko jege si ma fekk na Cheikh Seydi Hadji Malick ngi taalif ay téere téere yi mu mujjee taalif moom Cheikh Seydi Hadji Malick mooy kifaayatu raaxibiin ak ifham munkirul jaani te ci juróom-ñaari at la Serigne Babacar Sy donn Cheikh Seydi Hadji Malick waaye li gën a yéeme laaj nañ ko moom Serigne Babacar ne ko yow donn gi nga donn Seydi Hadji Malick ci juróom-ñaari at keroog ba mu lay jox sirru seex na Ahmada Tijaani daf la ko jox ndax njureel wala lan moo tax mu jox la ko fekk na Seydi Hadji Malick waxtaan ak moom ne ko nag lii ma lay jox mag ñi ñoo daje mag ñi ñoo daje ne lii ma yor amul kenn ku ko ma ku ma ko war a teg ci loxoom sama ginnaaw ku dul yow Serigne Babacar